sëñ bi ñu lay nuyu yaa ngi en direct Dakaractu euh, ñu nekk ci couvre-feu gis yéen ngeen nekk di def liggéey bu am solo ci jamono yi am sax message boo leen lancé woon ci population yi ñu gën leen jàppale ci pôle yu ñuy faral di këpp ak yu mel euh, lan nga ñu mën a waxaat ci loolu ci yaatal. waa maa ngi nuyu di leen fay di sant bu baax a baax mais yéen a ngi def seen liggéey rafet na torop mais ñun fi mu ne nii moom ah ñu ngi si jàmm bu baax moom ñu ngi sant yàlla bu baax affaire bi moom ñu ngi si kaw moom bëgguñu fii takk bëgguñu mu tilim. Mhm. waaw chaque jour moom ñu ngi si liggéey bi moom. Mhm. del liggéey gars yi tamit ñu ngi def seen liggéey di def lu mhm. waaw mais ñun it ñu ngi si ànd ak ñoom di liggéey di defar muy set. ak couvre bi euh, lan la indi ci coppite ci seen wàllum liggéey yéen a ngi koy wéyal ak même horaire yeeg di ko def ni ngeen ko doon defee wala am na ay changement yu ñëw ci couvre-feu bi. non amul benn changement moom comme nañ ko daan defee rek. noonu la noonu la mel ba léegi waaw. mais couvre-feu moom nu mu mel ni moom sa pa sa sa moom baax na moom. est que est que day bokk ci liy gën a yombal liggéey bi ci yéen. way way da koy gën a yombal waaw. Mhm. da koy gën a yombal moom comme ça xataay beeg yooyu comme heure bi ñu génn nii pour dem tëli léeg nga dem tëli ba xat. Mhm. léeg-léeg nga ñëw dootoo mun a dem di gaaroo benn heure bi di xaar. voilà deug ngeen ko ñom ñu ngi wéy di def liggéey bu am solo bi nga xamné euh, mom lañ mom lañuy def wa UCG yi euh, di continuer di assurer lepp lo xamné assainissement la ci ci banlieue bi euh, couvre-feu bi nak ñom ñu ci profiter peut-être pour gëna maximiser sen temps de travail ni ngeen leen gisee ni au niveau des deux voies de face coloban ñu leen di jaajëfal bu baax di leen féliciter ci ci ci liggéey bi donc xana rek ñu wëyel ba légui waxtaan bi image yi ba légui ngeen koy am en direct euh, juste vous dire que rek population bi ñom ñu ci bëri ñu ngi seen kër yi euh, taxaw ci balcon yi mais mbedd bi pratiquement à part quelques personnes rek euh, do ci do ci gis kenn kon agent UCG yi ngeen di gis nonu